déglul ma way fi Moustapha mile ñu tànn bis sifa tuddee ko Hamdi Moustapha jébbal ko Seex Fadilu déglul ma way fi Mustafa mi leen ñu tànn bistifa tuddee ko am di Mustafa jébbal ko seexi faddilu déglul ma way fi Mustafa mile ñu tànn bistifa tuddee ko Hamdi Mustafa jébbal ko seexi faddilu làq na mbooti Mustafa ma nekk marwataak safa ak mbooti baayam Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi fii ci Touba Khayra 2016 euh, doon présenter exposition bi ñu fi def ren ak comité d'organisation Magal Serigne Modou Moustapha Fallilou thème bi di euh, vie ak œuvre Serigne Modou Bousso Dieng ñu ànd ak ci comité d'organisation bi Serigne Mamoun Gadiaga Serigne Fallou Ndiaye jasaaka Serigne Omar Thioune Serigne Assane Diagne loolu lépp it ñu teg ko sukkandikoo ko ci livre boo xamante ni benn mbokk taalibe bu ñuy wax Serigne Modou Kandji moo ko bind dëkkalee ko si tuddee ko lépp loo xamante ni sëñ Mourou Moustapha Falilou nekk na ci mi ngi si def na it ay hommage waaye loolu lépp dinañ ko gis ci liggéey bi ñuy def ndax tey jii loolu la ñuy fas yéenee def fii ci xayra bisimilah ci exposition bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, ñi ngi ñëw nag ci présentation exposition bi si vie ak œuvre bu sëriñ Modou Moustapha Falilou ñu sukkandikoo ko ci xutwatun fi diin wal watan bu sa mbokk taalibe sëñ Modou Kandji bind jagleel ko sëñ Modou Moustapha Fallilou kuy wax ci sëriñ wala ngay wax ci nit da ngay tàmbalee ci néegam ñaari néeg yi ko seq di néegu sëriñ Mouhamad Cheikh Mouhamad Fadal ak Soxna bu Bousso Dieng Soxna bu Bousso Dieng moomu bokk ci askanu Guyaar Dieng mu nekk askan boo xamante ni ay kilifa lañ nekkoon askan woo xamante ni ay nitu diina lañ sëriñ ma yaasin ummi jëng di way juru soxna Bousso jëng mi jur sëñ Modou sëñ ma yaasin ummi jëng moomu sëñ ma jëng faaloo di way juram sëñ ma jëng faaloo bokkoon ci kilifa yi nga xamante ni mën nañoo ni gàddu woon nañ jamono ci seen loxo wëllëre woon na ak sëriñ Touba wëllëre ak sëriñ Touba nag bokkut ak wëllëre yi ñuy xam jamono ji ndax wëllëre jamono ji ci intérêt lay basé wu ak fi àddina ñii dañoo wëllëre woon te yàlla tax di ànd ci jëmm yàlla tax ginnaaw bi fi sëñ ma yaasin ummi jëng jógee sëriñ Touba daan na dem di ci barabam di ko ziyaare ji di ko màggali guddi ci jamono yooyu ci la xamante dajeeg sëriñ ma yaasin ummi sëriñ ma yaasin ummi ànd ak moom ñoom ñaar ñu dëgg ma liggéeyam sëriñ ma yaasin ummi ñun bu mu gisee sëriñ Tuubaa ànd ak moom ci la gëj a tàqalikoo ak moom ba bi muy làqu ànd naag moom fu ne fu dul ci géej gi ànd naag moom Mbàkke Kajoor jóge fa dem Mbàkke Bawal jóge Mbàkke Bawal dem Daaru Salaam Daaru Salaam Tuubaa ba ñu demee ci géej gi wàññeeku ginnaaw bi dem na Mauritanie dem na Thiéyène ba pare ñëw na Diourbel sëñ ma Yacine Oumy moomu bi mu ñëwee kër euh, kër sëñ Touba ci Mbàkke Kajoor la jébbalu nee nañ bokk na ci mag ñi njëkk jégalu ci sëriñ Touba bi mu agsee toog di xalaat ndax dafa gisoon mbind mu wéeru muy xalaat mbind mi ne ko bind rafet na ndax sëñ ma Yacine ñu leeral ni c'était un excellent calligraphe mbind mi dafa rafetoon lool sëñ Touba woolu maam Thierno ne ko mbind mii ngay xalaat sànq ba tey de sëñ maam Ibra Faati mii moo ko bind bis ni tey boole naa leen kon ma sama yaasin ummi diir bi mu nekkee sëñ Tuubaa di tarbiya sëñ si loxol Thierno Ibra Faati la nekkoon mook maam noo ñu séq ay diggante yu rafet mook maam Thierno ñu séq wëllëre goo xamante ni foo ko natt weesu na ba ci ku nekk sa morom tuddee na sa morom doom ñu ñëwit ci xalifa yi nga xamante ni ñooy ñoo ñooy guyaar ndax guyaar jeng lu waaye waxadi waxadi xam ni dëkkub kilifa la dëkkub yàlla la dëkk la ñoo xamante nit ay nitu yàlla ñoo fa nekkoon sëriñ guyaar dëkk bi moo tudd guyaar ku fa nekk xalifa la ñuy woowee sëriñ guyaar ginnaaw ba sëriñ ma jëng xalif moo waroon a ne moo nekkoon Serigne Gouillard ginnaaw bi mu fi jugee ay doomam ñooy nekk xalifaam ku mel ni Serigne saam Dieng sëriñ Soin bu Dieng Serigne Abdou Khafour Serigne Bassirou Serigne Baara Serigne Abdou Dieng Serigne Moustapha Maguette Dieng Serigne Moustapha Maguette Mbacke Dieng ñu leeral ko ni moom it di way juram doomi Serigne Mamour Diarra la Serigne Mountakha Dieng ak Serigne Moustapha Dieng Serigne Mayacine Oumy Serigne Touba. jox na ko doomam muy soxna ummi Mbàkke soxna ummi Mbàkke moomu amoon na fa ñetti leer dañoo guddul fan ñu ngi ñu denc Guyaar Jeng ginnaaw bi mu joxaat ko doomi boppam di doomi sëriñ Mamour Diarra muy soxna Maguette Mbàkke mu am fay leer sëñ ma Yaasin ummi Jangit amoon na yeneen ñaari leeram yoo xamante ni jox nañ ko sëñ Modou Moustapha kii ñu jox ko sëñ Massamba kon moom jaxasoo woon naag sëriñ Touba jaxasoo woon naag waa kër sëriñ Touba ba léppam lu mu amit sëriñ Touba la ko dëgtal foofu la ñuy yem ci sëñ ma Yaasin ummi ñu barkeelu ci mbindam mii nga xamante ni rafet na lool lool na ba foo ko gis rek da ngay da ngay naw mbind mi ndax calligraphe ak mbind mu rafet bu ñu paree ci sëriñ ma yaasin dañuy dem ci dañuy dem ci Cheikh Mouhamadou faadal bi nga xamante ni mooy way juru Serigne Modou Moustapha Fallilou ñu wax ni Serigne Fallou amul kuñ koy jàngal mooy Sénégal di doomi soxna Awa Bousso ak Serigne Touba toog xalifa Serigne Touba 45 ba 68 àggale jumaa ji tabax Touba losi lotise Touba jox doomi Serigne Touba yëpp ay kër yu wër jumaa ji sanc marché Ocass defar loo xamante ni ci yoon wi tey jii kenn du ko fàtte sanc ay dëkk lu mel ni Touba bëggoon nit ñi Touba Aliya Medina booba di ci bay gën ci liggéeyal Serigne Touba paree ci Serigne Fallou dañuy ñëw ci soxna Bousso Dieng bi nga xamante ne mooy way juuru euh, Serigne Mouhamadou Moustapha Fallilou nekkoon koo xamante ni nii soxna su jaayante la soxna soo xamante ni léppam da koo jox Serigne Modou Bousso da ko jox Serigne Fallou jël sëñ Modou it ne ko jàppal Serigne Fallou mii comme say way jur jàpp ko comme sa Serigne te nga koy tarbiyu ngir jot ngir ngir ngir ngir ngir jot euh, ndigalam mu làqu ci 1963 di ñaan yàlla yokku leeram ci barke Cheikh Mouhamadou Moustapha soxna Maguette Diagne tàmbali ko te mu ñëw ba ci bu sa Dieng ma ñëw war a eggale nag gër bi di wax rek ne Serigne moodu ginnaaw bi nga xamee ne sunu borom def na Serigne Touba tànnal ko wayjur yu sell wayjur yu am solo ndax sëñ Touba moo ko tànnal wayjuram wu jigéen soxna sa Dieng daal di koy dénk Serigne Fallilu moom nag bi nga xamee ne sunu borom def na mu gane àdduna dafa daal di jàng alxuraan mi ngi jànge alxuraan ci Serigne Mor Sànqe mu jàng fa alxuraan jàng njàngin wu sell mokkal ko lool jàng xam-xam def li nga xam ne moom la war a def lépp ci xam-xamam ak alxuraanam bi mu defee loolu ba noppi lii mu daal di def mooy ànd ak wéyjorum wu tedd bi ñu ko ci Serigne Modou Moustapha mu dem fa ngir tërbiyew fa waaye balay loolu rek ñu barkeelu ci mbind mii nga xam ne Serigne Modou Bousso Dieng moo ko bind muy Sindiidi lii nag ay mbax moo ko xaw a laal ba tax mu xaw a mel ni waaye lenn la ci sindidi bi nga xam ne moom la bindoon ñu dencoon ko jël ci rek indi ci barkeelu waaye sëriñ Modou sëñ bi daf koo daal di jël eggalee li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu waroon def ci moom muy lan muy tërbiye ko tërbiye giit it mi ko defee ci kër sëriñ Modou Moustapha bi mu fa tërbiyaa ba nga xam ne tërbiyaam egg na sëñ Modou Moustapha dafa bind leetaru ngërëm jox ko ngir mu yóbbul ko sëriñ Fallilou am na jikkoom yu bari yoo xam ne ci Serigne Modou Moustapha mii la ko jëlee moom Serigne Modou Bousso Dieng bi mu bi ba noppi li mu daal di def rek mooy dafa daal di nekk ci waajuram nekk nag secrétaire <coughs> nekk nag confident nekk nag conseiller nekk nag ab dongam boo xam ne dafa topp ci ginnaawam gëm ko lool lu fu Serigne Fallilou mas a nekk wala mu koy masa def rek daan na taxaw ci wetam di ko taxawu fii nii sax buñ ko seetloo ci photo bi. ab interview la boo xam ne benn tubaab moo ko doon defal Serigne Fallilou Dame Dramé doon ko tekk ci tubaab ak ci wolof waaye boo teewul Serigne moodu en fin communicant mu toog ci wetu Serigne bi nekk koo xam ne waa communication bu wër ngir di déglu la ñuy laaj ak la ñuy wax ngir bu fekkee ne erreur am na wala leneen mu mën a topp loolu yëpp day wone taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw woon way juróom wu tedd wi Serigne Fallilou Mbacké Serigne Modou nekkoon koo xam ne ku yaatu la woon. nekkoon koo xam ne ku bëggoon mbokk taalibe yi la waaye ba tey nekkoon koo xam ne ku daan liggéeyal Serigne Fallilou la ba tey ci ni ma ko waxee woon Serigne Modou nag buñ fi nekkee di expliquer naan mooy kii dara gënte yellu lu dut ñaari Serigne Modou doomu Serigne Fallilou la ak soxna bu sa Dieng loolu rek doy na sëkk ci di wax ci portrait Serigne bu Boussa Dieng di wax rek ne Serigne Modou ku fonkoon taalibe yi la musta am benn soxla wala benn bëgg-bëgg boo xam ne lu taalibe yi Serigne yi mu ñu taxawu leen teg leen ci yoon moo tax foo ko mas a fekk bu ma naa toog ak taalibe yi bu dee ne taalibe bi dafa nekk tuut tànk bu am juróom-benn at Serigne Modou dina wàcce boppam ba do mel ne ak tuut tànk juróom-benn bu fekkee ne dafa nekk taalibe boo xam dafa nekk waxaande waxambaane Serigne Modou dana wàcce boppam ba tollook taalibe boobee ca waxambaane ga bu dee mu kàllaf dana wax ak moom ca waxiinu mu kàllaf bu la Serigne Modou masaanaa sax xam ne lii nga def du yoon bam la koy xamal ba nga frustré du tee bu paree dina delloo si law ba mu ba nga xam ne Serigne Modou bëggul nga mer waaye da doon wax rek li nga xam ne moo nekk ci yoon Serigne Modou doon koo xam ne ku tukki la man damay wax ne cinq continents naa yi océan yi rek laa ci xamul fu mu ci teg tànkam waaye faneen fu dul foofu rek teg na fa tànkam da daan wax ne tukki gi muy tukki day bëti yërmande yi nga xam ne moo nekk ci moom ak euh, <coughs> bëti yi nga xam ne sàkku sàkku ndimbal gi ci taalibe yi daan na ko jaral rek ngir mu dem ba yërmandam yooyu tegu ci kaw taalibe yi waaye mustu tukki fenn ngir di wuti xaalis wala muy tukki fenn ngir di wuti lu mu am mais dafay dem ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo newoon ci diaspora bi Serigne Modou bi nga xamee ne Serigne Fallilou jóge na fi moo taxawal Kazu Rajab nit ñi sax dañuy wax ne sëñ fallu màggal na Kazu Rajab mais sëñ fallu màggalul Kazu Rajab sëñ Fallou da daan màggal bis bi moom ci boppam daan def bu guddee mu dem Daaru Salaam fanaan fa bu xëyee dem kër sëñ Afe kër sëñ Afe ñang yendu fa bu nga ba paree ñibbi def ko ba ni mu génnee àdduna sëriñ bi ci 70 71 muy ki nga xam ne mu la tàmbalee taxawal màggalu Kazu Rajab bi mu ko taxawalee nag def na ci boppam. li li tubaab di wax met son sien def na ko maanaam def na ci boppam bu wér a wér a a wér def ci jëmmam def ci alalam def ci xamxamam def ci li nga xam ne ci la ci war a def lépp ba loolu moo waral ñuy wax ne màggalu a Rajab daanaka mooy ñaareelu màggal ci yoonu murit ginnaaw màggalu tuuba ci cib dayo ak ci rëy li ci nit ñi jublu koo kii nag mooy ki nga xam ne fi màggalu a Rajab tollu ñu koy wax moo tax muy moom waaye Serigne Modou nekkoon ko xam ne aussi ku fonkoon Serigne Fallilou la ba wane ko ci njaboot gi ndax Serigne Fallilou bi mu fiy jógee njaboot gi dafa bari woon ay tuut tànk ñi ki toll ci jàng alxuraan yóbbu na leen ñu jàngee alxuraan ñi ki toll jàng ci xam yóbbu na leen ñu jàng xam-xam ñi toll ci samp kër sampal na leen kër ñi ki toll ci taxawu taxawul na leen defoon leen ñoom ñëpp ay xarit defoon leen ay àndandoo defoon leen ñu bëggoon bu ngeen seetee sax ci photo yi da ngeen di gis fi fii mook sëñ Aliou sëñ Fallilou la fii mook sëñ Mourtalaam sëñ Fallilou la fii mook sëñ soin bu ñu koy wooyee soin bu moom Paris kii fii moom lenn ci njabootug sëñ Fallilou gi la fii mook lenn ci njabootug sëriñ Fallilou gi la ba tey mu mu mu mu mu mu mu fonkoon leen lool nit sax da daan ñëw fekk fa doomu sëriñ Fallilou ak doomu Serigne Modou Bousso di jébbalu ci sëñ Modou mu joxoñ ko doomi Serigne Fallilou ngir wane rek fonk gum fonk waa kër Serigne Fallilou yi Serigne Modou ci wàllu boppam nekkoon koo xam ne acteur de développement la acteur de développement nag weesuwul à trente cinq ans nga sanc sa premier village muy Sam Yabal mille neuf cent cinquante cinq Yaman la njëkk a sanc Yaman se à cinq kilomètres de Ndindi booba bi mu koy sanc amul trente cinq ans yu ma trente trois ans ci la sanc Yaman mille cinq bi mu ko sancee ba pare mille neuf cent cinquante sept mu sanc Xaayira mille neuf mu sanc saam yobal après sanc Bousra sanc nag yeneen dëkk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba 76 ginnaaw Serigne Serigne Fallilou mu dem laaj benn foore boo xam ne classé la woon ñu déclassé ko jox ko ko mu daal di koy gor sanc ko équipé fa lañ fa war a équipé yëpp yóbbu fo ndox yóbbu fa poste de santé jël ay nit yóbbu fa te it fu mu mas a sanc ba jël ay nit yóbbu fa ñooñe moo leen daan yor ci wàllu gune moo leen daan dundal moo leen daan joxe tool moo leen daan joxe ay jiw mais mu xam ne aussi moom sëñ Modou ko en tant qu'acteur developpement nit ñi di déplacé wu di dem ci hôpitaux yi di def leneen ak leneen moom day li mu def mooy daal di ne dëkk bu ne war naa faa mën a def foo xam ne fa la ñuy fajoo tax xaayira gii nga xam ne moo ko sañcoon mu defi benn centre de santé centre de santé soxna bu sa jeng dem ca Ndindi nga xam ne fa la ganee àdduna mu def fo benn poste de santé dem Doli ga nga xam ne moom la mujj a sanc moo leen koy wax def fa benn poste de santé dem fi nga xam ne mooy saam yebal mu def fa benn poste de santé Touba Bogo gi nga xam ne wéy juróom ko sancoon mu def fa benn poste de santé te dëkk yi fu mu ci sanc équipé na la ndox teg fa ay nit di leen euh, toppatoo di def li nga xam ne moo war loolu boo gisee ci kii bi da gis sax ne réalisation yi sëñ bi am na 63 millions am na 45 millions 49 millions 67 18 millions 45 millions 45 millions loolu yëpp sur fonds propre la ko defee jërut benn dërëmu benn projet di ko ci def wala leneen ba koy def it koo def rek ngir taalibe yi ngir doomu aadama yi amu ci benn centre de santé wala benn poste de santé boo xam ne defar na ko ba pare jël ay doomam teg leen fa te it bu ko jëlee ba defar ko ba noppi da koy équiper jël gouvernement jox ko daal dina ko gérer Serigne Modou. kon noonu la doon def ak li nga xam ne mooy gouvernement bi mais mu xam ne aussi ci action de développement bi nga xam ne moom laa doon wax léegi comme ne moom dafa nekk acteur de développement dafa daa di xam ne àdduna day dox mu xam ne ngir ñu mën a too àdduna il faut ñu defar ak kuréel mu taxawal fondation Serigne lu Mbacké fondation bi bi mu ko taxawalee da cee daal di def contribution bu rëy ndax dafa jël ay millions yu bari yëkkati jox leen ko bi leen ko joxee daal leen wax ne lii mooy sama contribution jël waa Kër Sëñ Fallou teg ci kanam jël mbokk taalibe yi ñu ànd ak ñoom di liggéey loolu moo tax ginnaawam bi mu fi jógee waa njaboot gi xam ne ñu nit war nañ ko roy ci wàllu googu ñu daal di taxawal beneen fondation fondation boobu ñu koy woonde wooye fondation Serigne Modou Bousso Dieng ñu gën koo xam ci Fosma Bodim fondation boobu ñu taxawal ko 2008 lañ ko taxawal ci njiitu Serigne Djili ci njiitul Serigne Mourtala ci secrétariat généralu sëriñ Cheikh Mbacke doomu sëriñ Modou Bousso Dieng fondation boobu di def loo xam ne moom la sëñ Modou doon def lu mu doon def di doon def bu weeru koor jotee da daan dem euh, Padois nekk foofu di dimbale mbokk taalibe yi ci koor gi nekk fa di fa toog ba koor gi jeex mu dellu siwaat ñëw tuuba moo tax fondation bi chaque koor dafay taxawal ay ndogu ca Padois di ko joxe di ko séddale di ko jox waa Padois ak mbokki taalibe fay wër di ñëw waaye teewutit le bu jot ci année bu jot pendant un mois nañu wër daaray alxuraan yi ak fu daare daaray alxuraan nekk ngir ñu wàcce ay kaamil def ko addee Serigne Modou pendant un mois ba ren jii 735 kaamil de fondation bi wàcceel Serigne Modou bu bis bu mu jubaa ñu jef ay bernde def fa waxtaan delloo siwaat nit ñi wan indiwaat jikkoy Serigne Modou Bousso ñu jànge ca taataan ca Serigne Modou nag ngir li ma doon wax léegi ci action de développement bi mooy am na ay jamono Sénégal juróom région lañ ko diviser région Cap-Vert région Casamance région Diourbel région Fleuve région Sine région Ziguinchor euh, Casamance du moins waxoon ak région Thiès ak région Tamba sëñ bi xam ne jamono yooyu it nit bu bëggee état civil capital régional bi lay dem jamono yooyu sëñ bi xam ne nit bu tawatee daanako hôpitaux yi fi ne woon ci centre hospitalier yi fi woon yëpp ay centre hospitalier régional lañu woon dañ fay jógee dem te nit ñi booba pour ñu dal ci benn dëkk bu ñu fa demee dañuy am benn problème du am fuñ ñu fa dal du am ku leen taxaw ci la moom daal di wute ay représentant ci dëkk bu ne mu def fa ñoo xam ne ñoo fay toog ngir ñooñu bu ñu tawatee wala ñu soxla këyit wala leneen mu yabal leen ñu dem ca ñooña ñooña taxawu leen ñooñi mën nañ cee lim ñenn sëñ Mbay Njaay ca Tiwaawan sëñ Tuuba Gay ca Kaolack Serigne Cheikh Cissé ca Tamba sëñ Cheikh Diop ca Banjul sëñ Mbaye Ndiaye ca Tees El Hadj Douze Fall ca Ndar Serigne Souley Gaye ca Njaareem El Hadj Juga Mbaye moo nekkoon Ndakaaru ginnaaw bi sëñ Cheikh ka nekk Ndakaaru ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la tàndoon sëñ bi xam gu mu xam tërbiya xam ne moom mooy mottali doomu aadama te it Serigne Fallilou waxoon ko ne ko yow jëwriñ nga bi ko sëñ Fallou ne jëwriñ nga. bi ko sëriñ Fallou ne jëwriñ nga mu ne moom jëwriñ day du am ay tool du am ay euh, daara ci la jëlee daara yi nga xam ne moom la yoroon daf ko addiyey sëriñ Fallou lu jox leen ko waaye du woon daara yoo xam ne daf ko jël bi mu ko joxee sëriñ Fallou ba pare ñoom ñëpp ñu daan daf leen a gérer ba pare nekk seen jëwriñ fas yéene lu ñu liggéey bu liggéey bi jeexee mu boole la ñu liggéey boole la nga xam ne mooy matériel ak lépp ànd ak waa daara yi dem yóbbul ko sëriñ Fallilou ci jamono yi sëñ Fallou sëñ Fallou nekk yëpp daara yooyu ñu amoon na Touba Bogo amoon na Sam Yabal amoon na Bousra ñii ñëpp ay jëwriñi daara lañ yoo xam ne ci jamono yooyu lañ fi nekkoon ak sëriñ Modou Boussa Dieng bi ginnaaw sëñ Modou Boussa Dieng ginnaaw sëriñ Fallou it sëñ Modou Boussa Dieng yeggale na tërbiye yi daara yooyu continuer yor ay daaraam ci dëkk yooyu ma leen wax ba Doli ak Touba Bogo foo fépp def nañ fa ay daara mbind mi ngeen di gis Serigne Moussa moo woy Serigne Modou Bousso Dieng ay woy yoo xam ne juróom-ñeent fukki bayit ak juróom-ñeent la ñu daal di ciy jël lii rek def ko misaal te wone ko fii waaye juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent la yoo xam ne ci sëñ bi le def ba tey ñu tànn ñeenti doomam ci ay doomam yoo xam ne dañ leen a jël andi ko ndax sëñ bi bëgg bu mu bëgg sëñ Touba tax na ba. doomi sëñ Tuubaa yi kenn ku ci ne bi tudde na la doom ñu nekkoon kon nañ tànn ñeent yi mag ci waa kër gi wane leen sëriñ Jiili mi nga xam ne mooy xalif bi mu tudde ko sëñ Abdou Khadr sëriñ Mourtala mi nga xam ne moo ci topp mu ko sëñ Mourtala am sëñ Touba sëriñ Basiiru mu tudde ko sëriñ Basiirum sëñ Touba sëriñ Fallilu mu tudde ko sëriñ faliilu wéy juram waaye it nit ku ne boo sañoon da fi bàyyi sa ginnaaw ku la taxawu nit ku ne boo sañoon da nga bàyyi sa ginnaaw koo xam ne mooy nekk sa mooy nekk ki nga xam ne mooy taxawu sa ginnaaw moo tax sëriñ bi bi nga xamee ne moom dafa jógoon ne dan na sëriñ fàllilu rek fas yéene koo wone fas yéene koo toppatoo fas yéene defar këram yi def yëpp ci la kii nga xam ne mooy taawu sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Jili aw ci tànk yooyu daal di ne kat man tànk yi sama wuy juru jaaroon doon def ci sëriñ fàllilu noonu laay def ci kër sañ Modou ànd kook samay rak ci la ànd ak i rakkam taxawal jàkka jii nga xam ne mooy jàkkay xaayira cila la ànd ak i rakkam fekk kër gi benn bâtiment bu fi nekkoon ñu yeesalaat ko tudd ko bâtiment bi ñuy dalale gan yi muy la maison des hôtes nekk ci biir kër gi bâtiment bi mu ànd ak i rakkam def ko waaye ànd ak i rakkam ba tey fas yéenee defar jàkkay saam yabal waaye ren dañ ne woon dañuy jël ci exposition bi kenn ci njabootu sëriñ bi rendre ko hommage parce que at mu jot dañuy rendre hommage waaye ren ñu ne ki ñuy rendre hommage mooy ku am fulla ki ñuy rendre hommage mooy ku am fayda ki ñuy rendre hommage mooy ku am fit ki ñuy rendre hommage mooy ku mën a fippu ki ñuy rendre hommage mooy ku xamoon baayam ki ñuy rendre hommage mooy koo xam ne ku gëmoon sëñ Bamba ki ñuy rendre hommage mooy koo xam ne ku ku bëggoon doomu aadama la ki ñuy rendre hommage mooy Serigne Baara mbake di doomu Serigne Modou Bousso way juram wu jigéen ñu koy wax Soxna buso bokk ak Serigne Mourtala mii way jur kii di Serigne Moustapha di ab taawam Serigne Baara nag moom mi ngi bokk ak euh, wéyjur wu jigéen soxna Bintu bi nga xam ne mooy taawu sëriñ bi soxna maam Bousso soxna Mbeen sëñ Murtada ak euh, soxna maam Awa la bokkal wéyjur wu jigéen mi ngi nekkoon koo xam ne ku bëggoon sëriñ Modou Bousso Dieng la bëggoon njaboot gi bëggoon nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon waa kër Serigne Touba yi tegoon leen fa fuuf ba kii boo gisee photo bi sax bu fekkee ne yow ku mën a liir image nga da ngay xam ne kii ku bëggoon way juróom la ku ko tegoon fenn la ku yiwe woon la ndax fi mu toog ak sëñ bi doo gisoo ko mu siggi mi ngi jël ay bëtam sàjj ko jëme ko ci suuf tegul sëñ bi ay bët leneen may ko nopp bu attentif fas yéene koo déglu ci li nga xam ne moom la koy teg loolu nag mooy wane ne Serigne Baara sëñ Modou Bousso Dieng mi daal ku fonkoon waajuram la kooku mooy sëriñ Baara waaye nit ku ne war ngaa am koo xam ne da lay wax lii ëpp naa def wala nga am lii mat naa def nit ku mën a doon rek Serigne bi nag amoon ay xarit amoon ay conseillers amoon ay nit ñoo xam ne ñoom la daan àndal amoon ay nit ñoo xam ne ala kulli aal fu mu toll daan nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen wax ñuy wax ak ñoom ci àdduna ak àdduna am ci ñoo xam ne sëriñ Fallilou moo ko boole woon ak ñoom te ñu ne nag nañ ci tànn rek juróom ndax ñu ci jël dafa ñoom dañu xaw a sakkan waaye ren ñu jël ci juróom bu déwénee ñu jël juróom di ko def noonu ba muy ba ba ñuy egg ci ñoom ñëpp ñu ciy jiital sëñ ab Abdou Wudóot sëñ ab Abdou Wudóot Serigne Mor Farimata Mbakke mooy wéy juróom wu góor sëñ Mor Farimata sëñ Afe moo ko jur kon sëñ Abdou Wudóot surtout Serigne Afe jàng alxuraan ba mokkal ko man ko lool gane àdduna jaar Touba Ndiine Touba Ndiine mi ngi nekk ci juróomi kilomètre Bambey jege jege jege Bambey lool foofu la gane àdduna bi mokkalee alxuraan ba noppi nag dañ ko yóbbu ci sëñ moor sëñ moor Jaxate fa la jàngee alxuraan ci njaareem sëñ moor Jaxate moo nekkoon noddkatu sëñ Touba bi newoon ci njaareem fa la jàngee alxuraan foofu bi mu fa jógee dem na ci sëñ Mor Mbaye Cissé jànge fa alxuraan moom it bi nga xamee ne jàng na alxuraan ba pare bi mu amee fukki at ak ñett dafa ñëw ci sëriñ Fallou nekk ci wetu sëñ Fallou ci la ko sëriñ Fallou boolee ak sëñ Modou Bousso ñu nekk benn di ànd nekk ay xarit di di fu ñu toll ñoo daan nekkandoo ba sax am na ay jamono sëñ bi yenn saa bu yónnee sëñ Modou da boole booleeg sëñ Fallou bu ngeen gisee photo bii nii ñu ànd kii du Diallo période boobu Mamadou Diallo mooy nekk la président du conseil président du conseil ci jamono yi nag bu ñu ko seetloo mooy li nga xam ne mooy premier ministre. waaye ba tey mu am koo xam ne Serigne Aliou Ndiaye lañ koy wooyee sëñ Aliou Ndiaye Guédé lañ koy wooyee waaye daan nañ ko wooyee sëñ Aliou Ndiaye Sam Sam jooju nag li ko waral mooy Serigne Modou ak Serigne Aliou Ndiaye dañoo woon benn ndax sëñ Fallou moo leen boole woon. ginnaaw bi nga xamee ne moo leen feddi seen seen kóllëre ginnaaw bi nga xamee ne fasante nañ kóllëre ñoom ñaar ca dëkk boo xam ne ñu ngi koy wooye Bambuk nekk ca Saalum sëñ Aliou Ndiaye doon fa jàng alquran sëriñ Modou doon defub tukki ba yegg fa ba mu yeggee Bambuk bi mu egsee sëriñ al sëriñ euh, Modou Bassine si mi nga xam ne mooy sëriñu daara ba sëriñ Malick Bassine si mi nga xam ne mooy sëriñu daara ba daf ko dalal ci néegu sëñ Aliou Ndiaye ñaari fan yam fa am sëriñ Aliou Ndiaye daal di fay fasanteeg sëñ Modou Kóllëre bi sëñ Modou ñëwee sëñ Fallou laaj ko nu saw yoon def ba mu ko egsee ci yoonu Bambug bi da koo wax ne ko sax tase naa faak koo xam ne de fasante naa ak moom kóllëre xamal ko kan moy sëñ Aliou Ndiaye sëñ Fallou daal di ne ko kóllëre googu yéen ko fasante woon waaye dëgëral naa ko bi sëñ Aliou Ndiaye jàngee alxuraan ba noppi sëñ ba nga xam ne jàng na alxuraan jàng xam-xam def lépp sëñ Malick Bassine da koo jël andi ko si sëriñ Fallilou wax ko ne ko ba nga koy jox day da ngaa bëggoon ko daas nañ ko ba mu ñëw léegi nag mën naa dagg mën naa rendi loo loo ci soxla rek mënees na ko cee def sëñ bi daal di nag kon baax na bisimilah bàyyil ma ko fii bi mu ko fi bàyyee nag ci ko booleeg sëñ Modou daal di féttaliwaat kóllëre rek nga xam ne moom lañ amoon ca jamono yooya bi sëñ bi sanc saam yebal mu boole ko ak moom daal di koy wax ñu ànd dem saam ñu taxawu fa sëñ bi nag nekkoon koo xam ne lépp loo xam ne daf ko daan soxla ci diine moo xam takk sëy moo xam tudd doom moo xam yóbbu nit ñu mu jiite fenn wala leneen booba sëñ Aliou la daan jël mu ko daan defal ba fii ci poto bi bu ngeen ko gisee Padois la ndax booba Padois moo fa doon jiite tabaski moo fa doon jiite korite moo fa doon jiite it ah, li nga xam ne mooy tamxarit gi jullit tamxarit ak yooyu ci jamono yooyu sëñ Aliou ak sëñ Modou suñu tàggoo ba ni nga xamee ne ni lañ demee àjjana ñi ci des sëñ Bousso Ilimane la sëñ Makhtar buso ñoom it ak El euh, Hadj Cheikh Ka kii Basirou Tall lañ koy wax ab immigré la woon doonoon taalibi sëñ bi moom it yàlla dogal euh, nëgë ni daaw ci màggalug daaw daaw ni tolloog moom ci la génn àdduna ren di ah premier di di di anniversaire génnu àddunaam ñu boole ko ci rendre ko hommage sët yi sëñ Modou yi dañuy def ne chaque année ñoom dañuy def conférence bu ñu nee suba ba tax ren seen conférence bu ren bi. ñu parrainé ko sëñ Modou Mamoun mi nga xam ne mooy taawu maam Cheikh Anta ñi ngeen di gis nii ñëpp njabootu maam Cheikh Anta la kii nag moom moom jërut jërut wax moom mooy jaat lu xew mooma ta kenn du moom fii ñu am fi Serigne Modou ak Serigne Fallilou lii fii ba tey ñu am fi njabootu ah, sëñ Modou Mamoun gi ba tey fii njabootu sëñ Modou Mamoun gi lañ fi am kii nga xam ne moo nekk nii soxna Bintu lañ koy wax mooy taawu Serigne Modou bu sa jëng sëñ Modou jël ko jox ko sëñ Mbàkke Astou mi ngir rek feddali kóllëre ga nga xam ne amoon na ko sëñ Modou Mamoun asalaamaaleykum wa rahmatulah. ci ñëw fii ci bisub sëriñ Mouhamadou Moustapha Fadilou di bisu ñaan ndax yàlla moo wax ci alxuraan ni adduuni astajib lakum yonent bi salaahu salaam wax ni adduaa u silaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayal ab jullit di bisu fàttaliku ndax. borom xam-xam yu baax yi dañoo wax ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahma fàttaliku nit ku baax day wàcce yërmande sunu borom bis bi nekk bis bu am solo boo xam ni ak njabootam ñoo ko taxawal ci njiital sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ni mooy ab xalifaam di rafetlu liggéey bi ak taxawaay bi di bëgg di kontaan mu fab liggéey bi teg ko ci loxoy sunu. xarit sunu rakk di sëriñ Modou Khary mu di ko taxaw ci ndigalal magam sëñ sëriñ Fallou ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkul sëñ Modou Bousso Dieng di nuyuwaale yi mi nga xam ni sëtu sëriñ Modou Bousso Dieng la di taxaw bis boobu nga xam ni moom la sëti sëriñ Modou yi di def te def gi jubluwuñ ci dara lu dundal seen liggéeyub maam at mu jot. ñu koy fab kenn ci ñi nga xam ne amoon nañ sëriñ ak sëriñ Modou alaaxaat yu doxoon seen diggante ak moom ñu tudde ko ci njabootu sëriñ Touba ak ñi nga xamante ne si ni ñoo bokk ak sëriñ Touba Mam Maram mu am ci taxawaay bu rafet boo xam mi ngi ko ci taxaw nekk président comité d'organisation journée culturelle seex moom Lamine Bara di nuyu sëriñ Abdourahmane mi toog sëriñ Abdoul Aziz sëñ Mam Cheikh ak mboolem njabootu sëriñ Modou Bousso Dieng gépp sëriñ moodu nag man tey vraiment. am naa lu ma impressionné lu bari ci exposition bi nga xamante ni si gis naa ko fi mu nekk loo xam ni dafa am solo ci dundu doomu aadama ndax ñu bari ci génération bii nga xam ni ñoo fi nekk ñu ci bari jaxasowul woon ak sëriñ Modou waaye nit liggéeyam bu fi jógee lay feeñ te feeñal bi ëpp solo ci liggéey ña ko mën a feeñal mooy ak njabootam exposition bi koo gis xam ni sëriñ Modou ñu ngi lay ci sant bu baax di ci gërëm ndax lu am solo loo xam génn na lenn ci dundam ndax dunduk sëriñ Modou xajul fii waaye nag am na luñ ci tànn loo xam ne ku fi ñëw xool ko da xam ne kii jàmbaar la woon joo xam ni responsabilité bi doxoon digganteem ak sëriñ Touba doxoon digganteem ak sëriñ Fallou doxanteem ak digganteem ak njabootuk sëriñ tubaa xamoon na ko li arab di wax na al masul day ñeme masuliya responsable day ñeme la responsabilité. moom nag responsabilité boobu ñime woon na ko gàddu woon na ko ba tax na liggéey na fi liggéey bu am solo boo xam ni ku ñëw fii fa tabaarakallaahu sa xol dana sedd ndax foo dugg ci kër Serigne tubaa muy kër Cheikh moom leen baara boo demee da nga fa fekk Modou Boussa Dieng sëñ Abdou Baara ku jur da nga fa fekk Modou Boussa sëñ Xaadim Awa Ba ku nga duggee ko noonu ba kër doomi Serigne Touba yëpp jeex kon kenn ku ci nekk am na alaaxa yoo xam doxoon na sa digganteeg moom te damay wax ni koo xam ni nawoo jikkoom nawoo nawoo faydaam nawoo ngorom doo fab sa doom dikk ko tudde kon kam yooyu ak magam yooyu nga xam ñoo ko tudde woon doom gisoon nañ ci moom ay jikko ak ay qualité yu am solo te alxuraan moo wax ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yàlla di tagg taggewu ko Abdoulaye sa baay taggewu ko Aminatu mooy sa baay ko yaa ngi bokk ci Abdul Muttalib da koo taggee wa innaka la ala xuluqin azimin yow de yaay ki nga xam ni yaa gën ñëpp jikko Serigne Modou nag jikko yi rafet yooyu moo nekkoon ci moom ba ay mbokkam nawloo woon ko fonkoon ko jox ko cër tudde ko doom beneen bi ci des it mu amoon taalibe faboon sëriñ Fallou mu doon buntam ci sëriñ Touba te alxuraan day wax ne wa aatur buyuutan min abwaabihaa booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt ba moom xamoon nañ lim soxla àdduna alaaxira ci loxol nekk moo tax bi mu jógee xoolul fenn soxlawul fenn gannaaw bi ko Cheikh Moustapha yoree yar ko tarbiye ko jàngal ko alxuraan def ci moom xam-xam bi fi Cheikh Moustapha jógee dafa ñëw takk ndigam nekk ci wetu waajuram sëriñ Fallou bi ñu demee ba 1967 66 bi fi sëñ Bassirou jógee sëñ Fallou woo sëriñ Abdou Lahat yabal ko mu def tournée ci biir réew mi sëriñ Abdou bi muy def tournée ba war a tëjee sëñ Modou da ko yónnee ndaw ni ko tournée bi ma waajuram yu digal kat ma koy def di wër Sénégal ci moom laa koy tëjee sëriñ Fallou sëriñ moodu ñëw wax ko sëñ Fallou sëñ Fallou ni ko bu ñëwee na ma fekk keroog ba fa sëñ Abdou Lahat demee. sëriñ Modou teral na ko ndax ku ne xam na ni ah, yonente bi dafa wax ci hadis ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim day faw du dëppoo na ci bis booba sunna gi nga xam ni yonente bi moo ko digle ku gëm yàlla gëm yonente bi gëm bis penc boo amee gan na ko teral bi sëriñ Abdou Lahad ñëwee teral na ko defal ko teranga yoo xam sëriñ Abdou Lahad wax na ni ngan gi fi mu jaar fépp li ko ci gën a impressionné bi mu ñëwee ci sëriñ Modou li mu fa fekk ci teranga ak ay xéewal ba mu ko teralee ba pare ba muy dem ci jamono booba dafa yëkkati fukki junni jox ko addiyey sëriñ sëriñ euh, tubaa mu nekkoon ko amoonu taalibe ko fonkoon ay waajuram ku fonkoon ay baayam kon bisam buñ ci ñëwee dañuy rafet njortu ni bisu xéewal la bisu tawféex la te yàlla yonent bi dafa wax ci hadiis ni isaa maatal insaanu in xata amaluhu ila min salaasin doomu aadama bu génnee àdduna jëfam yëpp day dog ba mu ñetti jëf sadaxatin jaariya moo xam sarax boo xam daana ko saraxe mu jóge fi yool ba di ko fekk aw ilmin yantafahu bihi wala daara joo xam ne tabaxoon na ko ñu fay ñu fay jàng alxuraan mu jóge fi yool ba di ko fekk ku fab ay cent millions ay soixante cinq million ay soixante dix millions di ko def ci jàkka di ko def ci ay juma di ko def ci ay daara ngir nit ñi gindeeku ngir nit ñi jàng kooku jàpp naa ni aw ilmin yantafahu bihi fu mu mën a nekk dana ko fekk wala mu bàyyi fi doom jubaax baax joo xam ne dana ko ñaanal muy aw waladin saalihin yad'u lahu te ku gis jataay bi gis njabootam gii gis sëtam yu baax yi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci moom mooy wane ne ñoom xam nañ li leen sëñ Tuubaa sédde mu nekkoon jëmm joo xam ni wax dëgg yàlla euh, ku xamoon li mu doon la koo xam ne danaan dimbali taalibe yi di fekk ñi sonn te kër jàpp leen mu dimbali leen ñi nga xam dañoo aaje dañoo am aaje baatin joo xamante ne làmmañ mënu koo tudd mu jàkkaaroo ñoom faj seen i aajo kon fa tabaarakallaahu Serigne Modou ñu ngi leen di sant di gërëm di rafetlu bis bi di rafetlu exposition bi di yàlla mu jàppale leen sàmm leen ba responsabilité bi nga xam seen i mag jël nañ ko teg ko ci seen loxo ku fi ñëw ren it wax dëgg yàlla gis nga ni yëf yi mi ngi yokk ndax mbir buñ la ko dénkee boo yokk rek yaa ngi wàññi kon fa tabaarakalaaw yaa ngi yokk yàlla na yàlla gën a jàppale yow ak say mag yëpp ci barke sëñ Tuubaa loolu rek lañ amoon kàddu ci sànni wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fekk nañ fi it sunu waajur di sunu gorat sëñ Abdou Rassakh jërëjëf kontaan nañ trop ahousu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wasalatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim tasliman ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di am mbégte ak kontante ci fekke si liggéey bu rafet bi liggéey bu màgg bi ñu nga xam ne ñu ngi koy defal suñu waajur cheikh mouhamadul moustapha moom sëñ fàll di ñaan suñu boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di wax ci turu comité pilotage bi nga xam ne moo jiite exposition màggal Cheikh Ibrahima Mbacke ibnu Xaadimu Rasuul yàlla def euh, ñi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bi euh, suñuy mag nekk ci suñuy wóllëre waaye di suñuy am di jàmm biñ taxawalee liggéey bu rafet bii di ko defaral jàmbaar ju màgg ji ñu ne woon nañ ànd ñun ñëpp ñëw fe fekke ci liggéey bi waaye barkeelu ci jëf ju tedd ju màgg ji nga xam ne sunu waajur woowu nekke woon na ko ci diine ji nekke ko ci lislaam bi waaye taxawee ko ci taalibe Serigne tubaay ba nga xam ne njariñul Cheikh Modou Moustapha Fadilu ci taalibe yi ak ci jullit ñi képp ku xam lu baax xamoon na ko loolu moo waral suñu kàddu tey suñu suñuy tànk tey ñëw siyaare si kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bi waaye fekk si liggéey bu tedd bu màgg bi nga xam ne euh, képp kuy jullit war na cee teg bëtam waaye képp kuy taalibe murit war naa béggee liggéeyub Cheikh Mouhamadul Moustapha fadilu di ñaan suñ borom ñu yàgg koo fekke ay at yu bari yàgg koo teewe te ñi ko samp am ci ndam ak xéewal ci barke sëñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. boroom xayra teggi nii keena laa fesal ndeyaw amoo moroom asal dongul te daali yow xasal ndeyaa di seexi faddilu loo wax ñu siñe dootu deñ yow koo tibbal kenn du ko xañ notal nu mbooleem ku nu bañ ci barke